hallo asalaamaaleykum youtube jàmm ngeen fanaan alhamdulilah baarikàlla tey nag dama ñëw pour ñu def vidéo bii nii dafay nekk mbiri lu tax ba ñu war a tëdd suñ sëy moom ba pare njëriñ li li nga xam ne mooy nekk njëriñ yi ñàkk a tëdd ba nga sëy moom loolu noonu laa bëgg a wax tey te nekkuma di ko based on mbiri xarxuraan or anything nekkuma ustaas obviously yàlla bëggut ko waaye dama koy based on just haduna and just life and just basic knowledge loo ne ñun ñëpp xam nañ ko type of knowledge wala ñu ñu si bëri xam nañ ko waaye gisewuñ ko comme dama koy gisee nii lu ñu war a jàng la te lu war a xam la te ñu dimbale an also dinaa si boole njëriñ yi appreciate uh, sooy tëdd ak sa partner soo tëdd sa jabar wala sa jëkkër su ngeen ko appreciate ngeen doyloo ko ngeen enjoy ko properly nu muy mun a dimbalee sëy bi ak resources bi ak njëriñi just doyloo xaduna appreciate xaduna ak just euh, appreciate sa bopp ak just sant yàlla ak gërëm yàlla si da fag ne yaa ngi dund ak xam nga sa yaram bi ak xam nga xaduna even though soo ko xeebee sax xaduna bu mag la loo xam di ko xeeb lu ne xam nañu bëri ñoo xam ne xamuñ ko soo njëriñi doyloo dara rek ak appreciate ko loolu noonu la wax bi tey so lu tax ñu war a sëy nit ba pare soog a tëdd ak moom hmm. su nit waxee sëy ak nit ba pare soog a tëdd ak yow nit ki def day xalaat ne xëj na xanaa yow jullit bu dëggu nga walla christian parce que dëgg christian yi tamit ñoo ñu si bëri yàlla seen yàlla bi daf leen wax seen Jesus bi daf leen wax ne ñu sëy ak nit only ñu tëdd ak nit only suñu sëyee ba pare so su fekkee yaa ngi wax loolu nit daf dee xalaat ne ah xanaa yow ngaa julite torop wala lan wala muy xalaat ne xanaa yow danga nga mu nga takk la ba pare danga nga bugg mu takk la parce que da nga ko nopp torop wala lan wala muy xalaat ne different xalaat daal la ko nit ñi dee gisee you see waaye xam na nit ñoo xam ne dañ dee bëgg a nit ah, ba pare balaa ñu tëdd ak moom fekk it's nothing to do with anything lu ngeen di xalaat yépp it could be more than that parce que nga tëdd nit boo sëyee moom ba pare sorry ma bunt bi la nga tëdd ak nit boo sëyee <laughs> moom ba pare lu baax la lu xam njëriñ la lu baax la si sëy ak lu baax la si sa si sa xel mi nu muy gisee sëy bi ak nu muy gisee nit ki ok waaye dinaa explain xam na ñu bëri ñoo xam ne nag dañ ko dee xam façon ngi sëy yooyu waaye duñ ko dee apprécier duñ ko dee addoo duñ dee xam sax njëriñ li dañ dee foog ne rek njëriñ li mooy ne yàlla daf lay yóbbu harjana wala yaa ngi am sëy bu set wala yow doo njaalookat wala njaaloo kii bala ngeen a sëy you know that type of but yeneen yi nga xam ne dafa hëmb loolu noonu yëpp loolu laa bëgg wax yeneen yi nga xam ne dafa nekk si beneen side bi lu wuteeg loolu yëpp te lu xam njëriñ la loolu laa bëgg wax tey parce que soo sëyee nit ki ba pare ngeen soog a tëdd njëriñ yu si nekk yëpp ñun suñ ko xamoon hmm? ñu ko ñun ñu bëri ñu ngi tëdd ak nit balañ koo takk te duñ ko def wala ñun ñu si bëri ñu ngi tëdd ñu ngi takkaat nit nit mu ngi takka pare soog a tëdd ak ñun ah. te nu konoon tey suñu xamoon njëriñ yu si nekk yëpp nu konoon tey suñ sëy bi luy gën a neex la suñ ko gisee woon comme nu ma koy gisee nii ok xaduna dafa baax pour nga wecc yenn ni nu koy gisee nga look deep into si kantumaa si sayit bu baax bi soo buggee sa xaduna gën a baax waaye soo nekkee rek di gisee dara lenn te loolu nekkul di dox si yow te gëstuwoo leneen ni nga ko war a gisee all the way round sa àdduna fi nga nekk rek ngay nekk te fi nga nekk su fekkee neexul la danga war a commencer di gisee àdduna neneen pour nga mun a get better it bi be anything ok waaye tey dama koy based on nit ñi nga ne dañuy sëy dañuy ah, tëdd tëdd ba pare balaa ñoo sëy njëriñ yi moo ci gis man ok si man nit ki soo tëddee moom soo sëyee moom ba pare balaa ngaa tëdd ak moom ok di bugguma wax tey lu tax nit ki nga war a am comme saa boo tëddu ak moom ba pare ngeen sëy ngeen di tëdd ba pare te sëyu leen euh, lu tax waru leen koo def bugguma wax loolu noonu yëpp tey parce que vidéo dafay gën a gudd dinaa def loolu beneen vidéo vidéo tey bi rek mooy yëppi njëriñ yu nekk si bu ngeen sëyee ba pare soog a tëdd number one reason lu tax soo nga war a seeg ni ka pare soo ko tëdd ak moom obviously su fekkee jullit nga da dafa xaraam pour nga tëdd ak ni ki te sëy ne xam na loolu gune yu ndaw xam nañ ko so number one mooy ne tiyaabo bi ngay xam si li nga tëdd ak nit moom ba pare ah, gëm yàlla bi ak ak respect bu nga jox yàlla hmm, ba tax nga am opportunité pour tëdd ak nit waaye jëloo opportunité bi yaa ngi yaa ngi ko bañ a def ngir yàlla nga xaar ba nga sëy boobu mooy number one reason bu tax nga war ko def number two mooy nit ki dafay gën a xam fit si sëy bi ak yow sa bopp nga gën xam fit fit mooy si english mooy um, bind ko si vidéo bi mooy um, gëm gëm dara nga gëm nga nga xam fit si dara so dafay tax kooku noonu gën a gëm yàlla si sëy bi xam ne sëy bu dagan lay sëy si fekkee borom jullit bu gëm yàlla la ba pare gën a gëm yàlla si yow gën a jës parce que ñu ni si bëri si fekkee dañ jaaloo ba pare soog a sëy dañ dee still sëy waaye dañ dee xam regret boobu noonu dañ dee xam rëcc boobu noonu su fekkee ni ku gëm yàlla dëgg daf dee rëccu ne si yëgoon mu sëy ak kii ba pare balaa mu tëdd ak moom you know that type of thing so yéen du ngeen xamaati loolu noonu yéen a ngi am just clear happy trusted and just holy and just faith type of marriage baax torop ngir ñaar yooyu ñetteel wi mooy dang dee am tros nit ki su dee danga danga ko xam nga xam opportunité pour tëdd ak moom sax nga am opportunité bi defoo ko hmm? nga toog di xaar ba ngeen sëy hmm? parce que nit ku tëddut ak nit fii yow la neex nit ñi moom dañ la dee topp saa yi nekk ku nga tëdd ak ñoom doo si mata yow góor ngaa oo jigéen ngaa oo anything like that ah caméra bi nit ñi dañ la dee topp pour nga tëdd ñoom saa yu ne waaye yow yaa dee ragal jos yàlla rek moo la ko dee teree def yee so su fekkee ne decide nga pour nga bañ a tëdd ak nit only ba nga xam jikkar wala ba nga xam jabar te soo xamee jëkkër wala nga xam jabar tam nga decide pour only tëdd ak ñoom only kooku noonu only hmm? yàlla rek moo la ko dee teree def so because yàlla rek moo la ko teree def saka soo demee ba nga xam opportunité boobu noonu uh, pour tëdd ak nit ki bala nga koo takk waaye yaa ngi ko bañ a def nit ki na xam ne yow ragal nga yàlla su fekkee ne yow ragaluloo yàlla sax par exemple du yàlla moo la ko teree def parce que xëy na nekk ni koo xam ne danga soo xóoli wala danga jullite torop wala danga gëm sa yàlla bi torop whatever yàlla nga xam dafay nekk koo kon danga ko bañ a ngir ne yow sa yaram bi danga ko respect danga ko bugg xam nga danga foog ne yow sa yaram bi daal ku tëdd yow rek dafa war a nekk ku nga séer danga loolu daal du pour yow daal yow daal nga jomb pour def loolu soo léegi kooku noonu dafay tax mu wóolu la mu tros la mu xam ne yow su la gisul xelam mi du ñaaw di xalaat ne yaa ngi topp jigéen xanaa nga bett ko torop mu mu mu jàpp la ngay def lu wala mu yëg ko wala mu mu jàpp la si lu mel ni waaye su dul loolu du la nekk di wóolu xa di daal parce que xam na ne yow nekkoo ni ku gëm loolu nekkoo ni kuy dund loolu nekkoo ni ku bugg façon yooyu so tros boobu noonu ak wóolu boobu dafa fa dee nekk si yow ak si jigéen bi number four mooy peace da ngay xam jàmm parce que sëy bu xamut trust xamut xóolu du xam jàmm waaye su fekkee ne sëy mu ngi xam trust xam xóolu dafay xam jàmm te jàmm boobu noonu dafay tax sëy bi gën a continuer gën a neex ngeen gën a dund jàmm you see number uh, five mooy nit ki su fekkee ne mu ngi sëy ak yow ba pare nga soog a tëdd moom hmm? su fekkee ne yaa ngi am opportunité bi sax pour tëdd moom ba pare nga bañ daf lay gën respect dafay xam ne yow respect nga yaramam bi respect nga sa yàlla bi su dee yàlla moo tax nga di ko def su dee du yàlla tamit respect nga moom yaramam bi wala respect nga yow sa yaram bi or whatsoever te loolu dafay tax borom gin laa jox respect dafa fag ne yaa ngi respect yaramam bi xëy na moom moo la wax ne la bëgguma tëdd ak yow te walla yow yaa wax ne ko bugguma tëdd ak jigéen wala góor te sëyu so dafay respect daf lay respect si loolu trop parce que ñu bëri munuñ loolu parce que soo nee ba nekk magam jëmm kenn terewul la koo def so respect te respect diggante bu xamul respect du mun a dox soo respect daf fa dee nekk respect mooy number five mhm. six mooy da dafay tax ngeen gën a jàng nu ngeen di apprécier tëdd bi tëdd ak jigéen ci kaw lal lu neex la noo xam ne la is amazing eh, dafa neex neexaayam xamul xamul fu waaye soo ko app seetut du neexati sax xam ne ñoo xam ne tëdd ak ni ci kaw lal dañ ko def comme cup comme nga jël cup of bi nga naan rek sànni neexut ci ñoom sax wala suy neex sax dañ war a try different nit feeg ba ñuy tasee kum neexal wala su neexee kenn ki sax du yàgg du neexati and just sad really it's sad fa daw yaram sad mooy daw yaram parce que li tax mooy because nekkuñ di ko def ak emotions nekkuñ di ko def ak appreciation nekkuñ di ko def ak feelings ak take seen time ak moytu ñu xam ñuñ koy defat dañ ko dee def anyhow ak anybody and just anyhow and just su fekkee yaa ngi avoid di def loolu nga keep sa bopp ba nga xam jikkar wala jabar hmm? te soo koy def moom nga def ko ak emotions ak feelings ak like appreciation ak like take sa time you know nga bi nga xam ne bànneex bi dafa important dafa pleasure te nekk lu hmm, you know nga def ko lu rëy parce que lu rëy la dangay gis ne loolu dafay tax seen diggante gi naa neex sëy bi gi naa neex ngeen nekk ay best friend ngeen du ngeen mun a xuloo sax wala su ngeen xuloo du yàgg du ngeen mun a xuloo xuloo yu rëy yi wala di nekk ennemi wala di nekk di développer parce que yéen a ngi xam loolu noonu seen diggante loolu noonu mooy leen di keep connected ba ngeen nekk best friend dafa really important si relationship yow ak nit sakantuma jëkkër a jabar nii ngeen xam type of relationship ci kaw lal wi instead of just jump rek mel ni ay ganaar rek and then just doon rek waaye su fekkee ne nag seetuloo ko doo mun a doo ko mun a lifin dangay tëb rek def ko anyhow kenn waxu ne saa yu nekk nga am one hour or something di waaye yenn yi mun ngaa def comme ganaar bot <laughs> yenn yi try nga jël sa time most of the time nga appreciate ko nga doyloo ko soo xamul time pour def ko ko rek la nga koy def kaw laal ñu xamee ko si sexe tubaab bi xamee ko si sexe du loo war a def saa ne loo xam ne la danga koy def saa woo xamee jot bi su fekkee ne par exemple yow jot bi yaa ngi war a dem liggéey or something jaru ngay jomp rek di ah all the time si jigéen di mel ni ganaar mun ngaa bàyyi ba soo wàccee nga xam time you know or something like this trial ngay ut time nga teg sa time soo koy def nga génnee sa xel si xalaati àdduna yëpp nga relax nga enjoy ko ndànk ndànk nga apprécier ko ndànk ndànk nga enjoy ni kii ni ki enjoy la ndànk ndànk ngeen xam ne da ngeen sëy tiyaabo la anyway so who doesn't want want mooy so léegi damay move si number I think I am at number seven foog naa bi mooy number seven number seven mooy again su fekkee ne yaa ngi xam ne ki nga soog a takk xam nga soog a koo tëddal su fekkee yaa ngi tëddal nit ki balan koo xam again dafay tax niki ki ginaa lifin ah, ginaa sik sikiyoo të tëdd bi I don't know it's it's like the, the, the number six dafa similar to number six but slightly different dafa tax nit dafa des ci façon nit ban la like I said ñun ñu si bëri ñu ngi xam ne ko xam ne daf ñuy takk balaa muy tëdd ak ñun waaye because gisee wuñ ko nii app seetuñ ko hmm? daf du dee def dara si sëy bi you know daf dee mel ni di same ak ko tëddal bala nga koo xam o something balaa nga koo takk or something because borom du koy gisee comme nu ma koy gisee nii yëpp. lii yëpp lu dee indi problème si suñu àdduna bi la léegi parce que ñun àdduna bi duñ koy gisee duñ koy apprécier lii yëpp fekk jàngoo nooy apprécier dara doo ko mun a xam daf dee tax ni ki gën a secure bi you know like gën koo protect gën koo secure gën koo respect gën koo sik secure mooy kaar kaar xaar xaar kaar kaaraange xamoon nuñ koy waxee du kaaraange de waaye mooy comme mooy kaar kaar dara nga protect dara you know secure ko so borom dina secure sëy bi parce que sëy bi dafay nekk lu valuable si moom again su fekkee ne borom xam na mind comme nu ma koy gisee nii su fekkee nag borom giseewu ko dara daf ko gisee ne rek dëdëdë loolu moo dee gën tax suñ sëy yi du dox ak suñ xarit ak nit du dox suñ digganteeg nit in général du dox suñ dara du dox suñ xaduna in général parce que du ñuy apprécier dara properly doyloo ko lii fekk jànguñ ko man de maa ngi koy jàng te maa ngi koy gën a mast léegi tam mu ngi change suma life moo tax ma bëgg di ko wax instead of may ñëw di wax yeneen topic yi all the time ak ko def comedy all the time and stuff war naa wax yi nga xam ne maa ngi gis njëriñ gi te mun nañoo jëriñ àdduna is all about nga jàngalu lay jëriñ bët bu set as older ok so dafay tax borom secure si bi lay I said protect ko secure ko xam ne lii sëy bu important la lii sëy boo xam ne sax su borom nekkee koo xam ne gu jullit la dafay ginaa dimbali sax borom mu xam ne lii sëy boo xam ne la sëy bu la sëy diine la sëy bu important la sëy bu xooli la su fekkee yow yaa ngi nekk partenaire bu baax si borom dina ginaa a dina ko may doole pour mu ginaa nekk ku baax si yow sëy bi dina ginaa neex dina gën xam chance pour mu continuer mu gudd fan te di ngeen si mun a am doom yu barke te di ngeen mun a just enjoy incha so now damay move si mbiri doom yi su fekkee ne yéen a ngi sëy moo war a nekk number eight su fekkee ne yéen a ngi sëy ba pare ngeen soog a tëdd yéen a ngi am ay doom hmm? because yéen fekkee ne yéen da ngeen sëy ngeen soog a tëdd because yàlla rek moo leen ko teree def lii laay wax de waxuma jos nga jëm gis xale bu ndaw yi know nga gis ko Gambia or something nga dem decide pour takk ko bala nga tëdd ak moom parce que xam nga ne xale bi virgin la am not saying that waaye loolu noonu ba léegi li ma lay wax ni yëpp bokk na si li ma lay wax ni yëpp mu si sëy boobu waaye lu may wax nii mu ngi moo of sëy xam ne yéen ma ngi jëmm ngeen dara terewut leen koo def léegi lu dul yéen rek yàlla wala yéen seen bugg ak respect gi ngeen xam seen bopp rek moo leen ko teree def waaye nekkul ne borom gune la te xamagul góoroo something ñooñ ñooñ moo gën a tax may wax si war a mel su fekkee ne yéen a ngi war a mun a a def lii ba pare te defu leen ko ngeen xaar ba ngeen sëy again su ngeen xamee ay doom si sëy bi hmm? wala su ngeen di yar ay doom rek in général yéen a ngi jàngal doom yi ne bi ko most of the time doom yi dañ ko dee xam dafa des rek but most of the time doom yi dañ dee xam ne suma yaay suma baay dañ xaar bañ sëy balaa ñuy def nangam nangam or whatever sëy bu set bu xooli lañ sëy nekkuñ di farantu parce que soo xamee nit ki muy sa far nga farantoo moom doom yi dañ ko dee xam dañ ko dee dégg dañ ko dee yëg li si bëri so doo leen mën a nax so léegi doom yi suñ xamee ne sëy bu set ngeen di sëy yaa leen di jàngal foofu lu xam important parce que gune yi léegi àdduna léegi bi gune yi dañ mun a teel a yàqu gune yi si bëri gëmatuñ sëy gëmatuñ sax nobel ñoom ñu si bëri léegi liñ bëgg mooy di travel the world di tukki di party di enjoy àdduna ñenn ñi sax dañuy bëgg xam liggéey bu baax waaye ba tey dañuy bëgg nekk di enjoy àdduna ñemeetuñ sëy bëggatuñoo def sëy ñoom ñi si bëri na soo gisee ñemeetuñ sëy bëgguñ ko def mooy ñu ngi magee si kër yoo xam ne sëy bu sant njaay lañ la dee xam bët bu set xuloo xeex bët bu set ay defante ut bu set yenn yi baay jaa ngi topp ay jigéen yaay jaa ngi mer di xuloo moom si loolu sëy bu naqadi daal wala yaay ji nekk jos jigéen bu jom bridge or si léegi sëy bu naqadi boo noonu daf dee tax gune yi ñu si bëri duñ bugg a xaat sëy soo su fekkee ne yéen a ngi xaar ba ngeen sëy balaa ngeen a def yenn yi dafay tax gune yi ginaa gëm ne sëy bi lu neex la lu xam la lu dëggu la te loo xam ne danga ko war a xaar ba nga sëy ak boroom balaa mu laa def nii soo jànga nga gune yi lool soo gune yi xam nañ chance pour dund lool su fekkee ne kuñ di ko dund tey sax for exemple ñu ngi jéem a xam jànq wala ñu ngi jéem a def lu ñu war ta def sax seen xel mi dinañ ñëwaat ëllëg ñu toog xalaat suma yaay suma baay ñu doon dundee ñu commencé di ko dund I'm telling you it's very important gune yoo yar si kët gu baax gu dëgg gu set gu lew gu xam mbuggee dëgg kët gu neex gu buggante ah gune yooyu noonu de fekkee fukk le ñoom juróom-ñett bi yëpp danañ dund loolu at least ñoom juróom bi yëpp danañ ko dund so dafa important pour gune yi number nine lu tax loolu noonu dinaa important pour nga war a xaar ba nga sëy ak nit ki ngeen soog a tëdd mooy da ngeen di xam something to look forward to balaa ngeen a sëy for exemple dangeen xam ne suñ sëyee lii lañ war a def waaye because defagu leen ko sa kas fekkee yéen ñaar yéen a ngi nobante dafay tax yéen a ngi look xam something to look forward to look forward to dinaa try ma bind wax bi fii look forward to mooy nga xam dara loo xam ne daal yaa ngi koy comme ça tey daal man su ma waree dem Gambia holiday pour visit maa ngi look forward to pour ma dem Gambia you see maa ngi xam ne su ma demee dinaa gis suma yaay suma mag suma mbokk yi you ak suma doom góor bu nekk foofu noonu and just lekk suppu kànja yi and just enjoy you see so yaa ngi look forward to pour dem Gambia yaa ngi kontaan ok mooy looking forward to so déggee tubaab am looking forward to mooy ne maa ngi xamu nu koy waxee si xolof comme ça maa ngi koy séentu daal mooy foog naa mooy séentu si xolof look forward to mooy séentu waaye dafa xalaxute waaye foog naa benn la mun nga ko replace ak séentu ngay séentu dara waaye most of the time loo xam ne lu neex la lu baax la moom la tubaab bi day use look forward to su fekkee loo xam ne la du lu baax dañuy wax ne rek am expecting to hear from these people or am expecting to hear from this waaye su fekkee ne nag lu lu baax la lu neex la si lañ dee wax am looking forward to this am looking forward to that ok so da ngeen di xam something to look forward to something mooy dara da ngeen di xam dara lu loo xam ne yéen a ngi xam ne lii lu neex lay doo lu spécial lay do waaye yos da ngeen di curious tamit because xamuleen naka lay mel you know and stuff like this so da ngeen di am that da ngeen di kontaan di am that exciting feeling exciting mooy kontaan that exciting feeling boobu dafay nekk fu noonu ngeen di you know wonder so bés bi si jotee dafay tax ngeen gin koo appreciate ngeen gin koo nawloo ngeen gën koo respect saka su fekkee jël ngeen seen time ngeen def ko ak emotions ak feelings comme nu ma ko dee waxee foog naa ne ñun sëy yu bëri soo gisee mu am problème lay kay seet duñ dee jël emotions and feelings pour pour def ko si xam naa du nit ñëpp ñoo am emotions and feelings and just like to take their time su ñuy def you know kawlaal but lu baax loo xam ne la ko ko jàng dina wecci sa àdduna saka soo xamee partner dina wecci sa àdduna yow ak sa partner ok partner mooy sa nit ki ngay nobanteel mooy partner waaye tubaab bi dañ ko dee use the word partner ne ki yéen a a ngi dëkk wala yéen ide yéen a ngi sëy ngi dëkk daal nekkul jos jànq wala far loolu mooy girlfriend mooy jànq boyfriend mooy far góor ok su fekkee partner mooy comme ça sa jabara wala sa jëkkër wala ngeen dëkk sa fiancé ngeen dëkk daal ngeen nekk lu yàgg ngeen dëkk moo dee nekk partner ok so daf dee tax ba nit ki mu gisee na bi differently because mu ngi xamoon loolu nu di look forward to it balaa sëy bi di ñëw léegi sëy bi ñëw dafay tax guddi gi ginaa neex guddi gi ginaa ngeen appreciate ko daf dee tax rek that respect and that special beginning mu continuer sëy bi noonu mu gën a neex bi ko yeneen ko commencé si guddi gu neex guddi goo ne ngeen ko respect guddi goo yeneen ko doon look forward to di ko yaakaar di ko séntu di ko xaar bu guddi gi jot ngeen teg seen time ngeen enjoy ko dafa nekk ne yéen dafa mel ni a ngi tabax ngeen commencé ko si foundation bu rëy bu dëgër bu neex soo tabax bi dafay gën a taxaw an gën yàgg daan tabax boo xam ne nga tàmbali anyhow and just going crazy ah. so dafa important ngeen teg seen time ngeen def ko da correct special way and ngeen addoo ko because dafa really special that's the reality te doo góor ak jigéen dafa really important really special ñun ñoo ko du gisee noonu rek te suñ commencé woon ko gisee noonu dina wecc suñ xaduna dina wecc suñ doomi seen xaduna dina def suñ sëy yi gën a neex suñ xaduna yëpp dina gina neex you see so the last one bi bii laay just wax last foog naa bii nii mooy last yeah I don't know if am na yeneen ñoo xam ne I wrote down am na yeneen ñoo xam si ngoon bala may nelaw remember but I have the book, the notebook here, but nekuma di read notebook bisa. So obviously, um, yeah, I already said everything that, you know, that, that lumo binder and yeah. So the last one be moy, oh, the last one be moy again, the fight them down, see again, so we can borom julit la, because yaa ngi sëy ak borom mooy comme lu ma waxoon si beginning bi rek because yaa ngi si ak borom te borom mu ngi nekk jullit yaa ngi nekk jullit te ngeen def sëy bi ni ko yàlla waxee dafay ginaa tax ngeen ginaa xam xub si sëy bi you gën see gëm yàlla gën see xam xub gën see yaakaar harjana just te du ngeen xam réccu you know yàlla mu ne soo njaalooxee nga def whatever nga ko daf la dee baalaal bot ba doo mun a dem for exemple every day nga def loo warta def ngay ñëw di ñaan yàlla mu baalal la for how many time ngay ñaan yàlla su yàggee sax dee toog ngay wanda est ce que yàlla dina di du ma mere du wax ne man dama koy ñaawal bu bu set ma dem def dara ñëwaat ne ko baalal ma so kenn waxu ne kenn du def yàlla lu lu mu waaye yenn yu rëy yi yu mag yi di ko tooñ tooñ yu mag yi te ñu di ko def mag magi jëmm lañ muskàllaf di ko def ngir bànneexi àdduna wala ngir xamuñ respect suñ bopp wala ngir xamuñ njëriñ lu ñuy def appréciétuñ ko foog naa ne loolu noonu loo xam ne dañ ko war a seetaat as we grow older grow older mooy comme ça ñun comme as ñu grow older mooy as we grow older mooy <laughs> léegi as ñu ngee mag grow older mooy ge lu ngay magee we're not supposed to be using grow older maybe i'm supposed to be using as we getting older grow older mooy it's a wrong english my english is a nightmare <laughs> grow older mooy grow mooy waaye mooy mag waaye grow normally tubaab yi dañ ko dee use si fekkee ni ki xale la te xale mu ngi màgg léegi gëj nga koo gis nga ne ah she's grown big now mooy ne kon kii léegi mag la you see su fekkee itam garab la garab baa ngi sax nga ne oh it's grown the the tree is really grown you mooy garab waaye su dee nit la su nit ki di mag comme ça nit ki nekkatu xale mu ngee mag dangay wax ne getting older as we getting older dina tram bindu ko fi parce que am na si yéen ne da ngeen dee bëgg a jàngale anglais sama vidéo yi dinaa defaat beneen english lesson video soon by the way as we getting older mooy léegi nga xam ne ñu ngee mag ok as we getting older ok parce que adduna bi kenn nekkatul xale nañu waxante dëgg soo dee ba passé sa fanweeri xat saf sa ñeen fukki xat sorry fanweer ñeen fukki xat yooyu nekkatuloo gune de mhm. te man next year incha lay xam ñeen fukki xat xam naa ne ñu buri dañ defoon ba léegi yaa ngi lug yoon de ba léegi xale nga de loolu du dara de ba no ok xale daal si man mooy ay xale bu am ñaar fukki xat ak juróom yooyu at least fanweeri at sax nekkatuloo xale yee so daf dee tax daal nga gina feel holy daal you know feel relax su dee borom danga nga jullite su dee jullite huloo tamit waaye danga nga bugg da nga xam ne you don't believe in sex before marriage sex before marriage mooy sëy mooy tëdd ak nit ki takk danaa try ma bind fa wax boobu noonu tamit so su fekkee yow da nga believe in only sex after marriage mooy tëdd ak nit only bu ngeen su boobaa dafay tax nga ginaa sax sëy bi dafay ginaa relax and happy and comfortable you si dafay mel ni léegi yaa nga nit ki dafa important trop ngay def li nga gëm ñun nag li leen xamut you see ñun doomu Adama Njaay nit ki dafa important nga def li nga gëm waaye ñun ñu siy dund luñ gëm moo bëriwut ñun ñu bari ñu ngi dund si fen ñu ngi dund si tappale ñu ngi dund si loo xam ne gëmuñ ko because nit ñi or because da da da waaye dafa important nga dund loo gëm sooy dund loo gëm sa àdduna daf di gën a neex da ngay gën a happy soo tëddee guddi dangay ngay kontaan sa bopp you see waaye su fekkee ne yow loo gëm lu ne wala loo bëgg a def lu ne rek doo ko def wala doo ko mun a achieve because of this because of dale lële naqar yooyu noonu different naqar yooyu dañ dee topp you see àdduna ñun suñ brain bi nu ko yàlla bindee daf dee gaaw a xam naqar daf dee gaaw a xam lu ko trouble lu si bëri nag ñun duñuy xam nag lu waral trouble wi soo dañuy nekk noonu nga def ñu lu ndaw rek ñu mer nga def lu ndaw rek ñu mer ñu ngi toog fuñ toll suñu xel baa ngee négatif ñu ngee mer xamuñ lu ñu dal fekk different naqar yu ñu xam different corner la day jóge si yeneen area of life la day jógee si yeneen fànn area mooy fànn soo yéegi yeneen fànn la day jóge yoo xam ne ñun duñ koy xam so and then after daf ñu dee stress you know and just not good it's soo fu mu jaar ñu xam ne suñ mayin bi dañ war a dund suñ mayin bi lu bugg ñun luñ wax suñ mayin bi lu baax mosu de tey suñ mayin bi lu mu bugg bon la déedéet parce que loolu dañ koy réccu te different réccu yooyu yépp lu ñuy jooy suba so jaar ñu jàng nu ñuy dundee loo xam ne suñ mayin bi lu bugg lu baax ñu fexe koo lijjanti ñu koy defee feeg defuñ ko duñ xam jàmm dañuy nekk di dund métit ak naqat This is just the reality. Believe me, I learned the hard way. I the hard mooy jàng naa lii si yoon wu métti si lu métti laa ko jàngee loolu mooy I learned this the hard way dinaa try ma bind fii learn mooy jàng this mooy lii the hard mooy ci yoon wu métti hopefully dinaa try ma bind lii fii ma remember ma fàttaliku remember mooy fàttaliku pour ma bind li yëpp fii mooy to write everything down here so hopefully ngeen jàngee si little anglais you know and while ngeen di déglu vidéo bi so lii laa bëggoon a wax tey lu nga xam ne dañ war a uh, xam njëriñ yi tëdd ak nit only soo ko takkee ba pare ak nu ngay jos apprécier nit ki ak addoo ko nu mu war a ak addoo sa bopp loolu nu muy taxee ba seen sëy bi neex ak just appreciate Haduna in general soo dinaa wax loolu a jos for like a one minute or something and then ma jeexal topic bi soo nit ki su fekkee jàng nooy appreciate Haduna doyloo Haduna daf di wecc sa Haduna yëpp like I said gis ngeen ne maa ngi ko dee wax ñun suñ problème yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp lu ko waral mooy du ñuy doyloo Haduna du ñuy appreciate suñ bopp du ñuy doyloo luñ xam du ñuy doyloo lu ñu yàlla wërsëgal ñu dañ ko dee xeeb dangay xam jabar xeeb ko xam jëkkër xeeb ko xam doom xeeb ko xam xarit xeeb ko xam sa bopp xeeb ko xam yëre xeeb ko xam néeg xeeb ko lu ne nga xeeb xeeb xeeb xeeb so léegi yow doo mun a happy te because also yaa ngi xeeb yooyu noonu doo leen mën a treat valuable doo leen mën a look after nga toppatoo leen nga def ko mu mu valuable valuable mooy lu valeur lu xam valeur daal xamoon ni koy waxee si lu am barke daal lu xam njëriñ lu am fayda doo ko mën a def noonu dangay jël rek dinaa try ma bind the word valuable fii nii dangay tat dangay jël lu rek nga def ko anyhow nga treat ko anyhow treat mooy def so danga koy treat anyhow rek because you don't care anyhow mooy just comme ça lu nekk eh, anyhow mooy mooy comme ça loo xam ne <laughs> xam nga tey man su ma amee jëkkër par exemple te jëkkër bi mu may toppatoo nekk jëkkër bu baax si man you xam nu muy waxee man xam nu muy defee man yooyu noonu yëpp you see like treat me like a queen which I anyway <laughs> joking so dangay gis ne bi nekkul di ma treat anyhow mu may toppatoo mu ngi may so léegi su fekkee jëkkër bi mu may treat anyhow su ko neexee mu mbéj ma su ko neexee mu wax anyhow you know and just def anyhow ak man mooy ne mu may treat anyhow anyhow xamoon ma koy waxee si xolof anyhow mooy lu nekk rek nu ne nu ne anyhow mooy nu ne ok that's the only word nu koy mun a waxee nu ne su fekkee tey man maa ngi nekk di def nu ne di def anyhow di def nu ne di def lu ma neex def anyhow waaye su fekkee maa ngi nekk di wax gentle focus you know nekk nice and decent focus kon nekkuma di def anyhow you see it's just I don't know how to say it but hmm, lii dafa just really important you know ñu si fekkee ni ñu ngi nekk di bañ a treat stuff anyhow di bañ a treat life and just stuff in general anyhow okay dina dina dina dimbale suñu àdduna you know dina wecci everything dañuy nekk di dund bànneex bu set sa mi dafay gën dal te sa jos sa xaduna dafay ginaa neex soo yar ay doom sa doom dañuy ginaa barke ginaa clever ginaa muus ginaa happy ginaa bugg xaduna bugg nit nekk nit ku baax ginaa kontaan ginaa mun a jàng gin la respect everything soo amee jabar wala jëkkër walla xarit wala anything borom dafay ginaa kontaan si yow nga kontaan si moom te di ko jàngal nit ñi nga xam ne ñooñ nga nekkal si néeg bi wala nit ñi nga xam ne ñooñ nga you know bokkal liggéeykaay or anything like this su fekkee borom dafa bon sax lu mu yàgg yàgg yàgg dina wecceeku ngir yow su wecceeku tey sax dina wecceeku even soo soo fa neexatul soo neexatul si àddunaam sax dina la xalaat ba mu wecceeku parce que ñun doomu Adama Njaay this is the lii mooy nga ñun doomu dañ xam yu baax yu bari ñoo ko dul gis rek yàlla nu bindee suñu xel mi suñ jàngee lu baax si suñ gisee lu baax si nit hmm? su fekkee ne ñun xañaan nañ pour wax ko ne lu nga mel ni dafa baax sax wala man ma sañoon ma mel ni yow ah duñ ko fàtte dafay nekk suñ bopp bi su fekkee ne ñu ngi ko xiit sax di ko because ñu ngi ko mere si nu mu mel so léegi ñu ngi koy naqadal wala di wut seytaaneem di ko merloo sax ba tey ñun dinañ toog si kanam sax yàlla yenn dina yàgg dana dem ay fukki wala lu ko ëpp wala yenn du mat fukki su fekkee neexatuñoo yow sax hmm? dinañ dinañ duñ fàtte ni nga meloon te dinañ toog bañ wecc loolu dinañ wecc benn bés lu yàgg-yàgg that's just life moo tax lay dafa important trop ñun ñu xam ne luñ dund hmm, ak luñ métti ak lu métti métti métti métti duñ mun a continuer di dund si naqat ak miserable ak jos ñàkk a pousser dara naqat soo xamee naqat moo dee waral nga ñàkk a dara soo gisee ñun nit ku ñu bari du ñuy doyloo ñu ñu si bëri dañuy nekk di luñ xam rek xeeb ko bugg a wuti leneen ñun ñu si bëri ñooy dund naqat li mooy problème waaye ñu si bëri xamuñ ko. you see waaye naqar different area la ñëwee si life moo tax dafa baax nga toog xalaat sax bopp bu fekkee dangay xalaat yeneen xalaat yi wala dangay defee yeneen def yi nga xalaat lu waral loolu nga jéem koo fix you see bi ko xaduna nit ñi dañ fa ne seen yaram mi nii rek lañu war a sollu defar ko xel mi tamit ak ni ngay jëfoy ak li nga dund ak li nga bëgg a dund suba ak li ngay dund right now yooyu noonu yëpp ngay teg xalaat leen lu nga xam ne mu ngi koy demee foo xam ne neexul la nga jéem koo fix waaye it's all down to yow ni ngay xalaatee ak ni ngay gisee àdduna bi soo fixee loolu rek sa yeneen yi si des yëpp dina fix I hope ne understand ngeen lu may wax ni soo maa ngi ñëw dem le ngeen am good day jërëjëf si vidéo yi ngeen di seetaan and hopefully dinaa remember pour bind English yi know wax yi at least ngeen jàngale yenn English and ngeen am good day tey xajjum wala Friday yàlla ñu yàlla may fan bu gudd ak wér gi yaram an fekki ay xat yu bëree bëree bëree bëree bëri ak hopefully ne vidéo yu may def nii kenn kenn ku si gis boppam dina xam ne rek man damay def lii pour xeer suñ culture bi including xeer sama bopp everyday lu ma jàng rek ak lu ma jàng yi ma passé yépp dama ko dee bëgg séddoo ak ñun that's all it's not dama koy def because dama dëdëdë no so nañ am good day and dinaa leen gis mu leen gisatee and thank you watching bye